installé nañ leen. waaw je que li nga xamante ne moom moo ñu regroupé woon tey mooy installation commission bi le ministre installé na commission bi commission bi huit membres la li nga xamante ne moom la commission bi war a def léegi mooy jublu ci liggéey bi jublu ci liggéey bi moom mooy lan am na règlement intérieur bu nga xamante ne war nañ ko adopté. règlement intérieur boobu moom moo ñu wax na la war a liggéeyee je pense que dans un avenir très proche dinañu regrouper wu adopter règlement intérieur bi nga xamante ne dinañu permettre ñu commencer liggéey bi. lan mooy liggéeyu commission bi. parce que commission bi li nga xamante moom lañ ko jox comme attribution code de la presse moom moo ko définir dañ ne dañuy attribuer euh, carte nationale de presse ñi nga xamante ne dañoo génn ci école de formation ñi nga xamante ne génnewuñ ci école de ñu valider seen expérience avant ñu leen di jox carte nationale de presse donc boo gisee dafa am nga xamante ne moom moo fi nekkoon. code boobu dafa waxoon dafa définir woon kan mooy journaliste journaliste bi dañ na woon mooy ki nga xamante ne dafa génn ci école de formation et qui l' essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste bon article boobu posewul woon problème mais dafa amoon beneen alinéa mooy paragraphe 2 bi bu nga xamante moom moo doon poser problème parce que dañ ne woon même boo génnewul école de formation mën nga nekk journaliste su fekkee da nga dugg ci de formation amul woon également commission de validation mais li xamante ne code bu bees bi loolu la wax def ne il faut que nga génne ci école de formation pour mën a am carte nationale de presse soo génnewul école de formation il faut nga am licence ak deux ans de pratique journalistique pour venir ci commission bi pour que ñu mën a valider expérience boobu su fekkee ni ñaar yëpp mataloo ko nga am fukki at pratique journalistique pour mën a ñëw ci commission boobu pour que ñu mën valider expérience boobu je pense que commission bi loolu mooy li nga non dama yaakaar ni tey jii tey jii tey ak code bu bees bi képp ku nga xamante ne yoruloo carte bi mënuñu la considérer comme ku ko yorul mënuñu la considérer comme journaliste donc sañ-sañ bi nga xamante ne ki ko yor moom la moom la war def mooy respecter li nga xamante ne moom mooy règle yi nga xamante ne moom lañ bind parce que boo xoolee code bi non seulement dañ ne da nga war a am carte nationale bi mais dañ la wax ne journaliste lan mooy liggéeyam parce que am na journaliste bi nga xamante noonu la war a comporté woo mooy liggéey parce que liggéeyam collecte la ak diffusion information mais am na benn comportement bu nga xamante ne journaliste bi war na ko am war na respecter un certain nombre de fondamentaux war na def li nga xamante ne moom mooy permettre liggéeyam mu def ko convenablement warul far ba mu fës par exemple di wane di wane fësam warul def lu nga xamante ne dafay boddi xeet warul def lu nga xamante ne quand même yoon da koy dàq journaliste bu ko fi bu ko bu def loolu également am na ay sanctions yu nga xam ne je pense que na ko donc journaliste bi daal dafa war a def li nga xamante ne moom la ko loi bi demandé as pour que mu mën. jiite euh, commission de la carte de presse bi nga xamante ne ñu si bëri si ñun ay ay membre nañ ci euh, di ko di rafetlu tànn bi nga xamante ne tànn nañ ko ndax nit la koo xamante ne ku xarañ la ku xam li muy def la mais surtout comme commission bi dafa am euh, wàllum juridique ci li muy liggéey ku xam loolu la. donc loolu dañ koy rafet lu di ci ànd ak moom di ko wax bisimilah euh, li nga li nga xamante ne bëggoon naa ko ci teg mooy ñu jàpp ñëpp rek ni euh, commission bi nekk fi pour boddi pour boddi compter commission bi daf fi ñëw pour delloo buum ca booy boy ga maanaam fexe ba ñun ñii ñëpp muy journaliste technicien caméraman photographe tout ñëpp ñi nga xam dañ nekk ci milieu bi te euh, loi bi déterminer seen fonction ak seen rôle pour mu jox leen gëdd ndax seetlu ngeen ni bon man mii tey jii bu ma neexoon léegi fii ak 30 minutes ma créé benn carte de presse bu bees loolu dafa bëri ay ay ay ay gàllankoor yu mu indi ci liggéey bi ndax d'abord du ñu wekk duñ la respecté di nga dem di déposer yenn documents yi kenn du la faale tey par exemple boo demee ci yenn ambassade pour déposer visa dañu la demande ay kayit de telle sorte que da nga naan mais man fan laa jëm donc avant de parler des euh, carte bi lan lay indil borom nañu nangu rek ni carte bi d'abord mooy li war. donc ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ci sañ-sañ am nañ ci droit nañ ñëw def seen dépôt et puis après incha allah euh, je pense que commission bi dina def liggéey bi waar en sachant que autorité administrative la tey mën nga dem sax ba boo d'accordul ak ñoom nga mën a dem ba euh, saisir même les tribunaux notamment le, la chambre administrative de la cour suprême leneen li mu ci bëggul yokk dama ko fàtte wax ci tubaab mooy assaini parce que dama ko laaj léegi assainissement bi fan lay tàmbalee lii benn pàcc rek la ci assainissement mais nañu xam ne aussi am carte bi taxul nga mën a def lu la neex ak fu mu la neexee bu ñu waxee nga ne man si la am naa suma carte de presse déedéet au contraire dafa am ay devoir yoo xamante ne aussi dafa ànd ak métier bi bien entendu da ngay exercer sa liberté mais na ko exercer en toute responsabilité boo tax dans ce cadre là pour ñëpp xamaale ko ñi ko xamante ni bàyyiwuñ si xel nañu nangu ni titulaire carte bi bu defee yenn toxi doon ak yenn njombe correct mun na dem ba nangu yi ba nangu proposer commission bi ñu nangu carte donc c'est pas parce que am nga carte rek da ngay commencer di def lu la neex donc loolu aussi c'est un des points bi nga xamante ne moo jëm ci assainissement bi en yi nga xamante ne comme par exemple l'obligation qui sera faite aux médias ñu respecter la convention collective loolu ay convention yeneen points yooyu yëpp incha allah jeudi bëgg nañ def ci benn point de presse ñun Synpics boo xamante ni dañuy détaillé parce que vingt 26 passé nañu fal ñun le 26 janvier 2019 démb nañu am un an donc dans ce cadre là am na benn réunion bu ñuy prévoir ci digg semaine bi euh, bu ñu si tegoo dina def benn point de presse jàkkaarloog woy woy taskatu xibaar yi pour discuter tous les points yi nga xamante ne dañ si engagé woon te assemblée générale dañ ko nuyu voilà c'est